jërëjëf mbokku internet yi nga xam ne yéen a ñuy seetaan jamono ji nag xam ngeen ne actualité oblige gis ngeen ne bi nga xam ne lancé nañ campagne bi fii ci Touba ñuy sàkku ci ñoom ci dispatching bi au niveau national ci 26000 signature yow Baye Alla responsable politique la bu mag fii ci APR bu Touba jamono ji dem ngeen ay élection yu baree bari jële ci ay jàngat naka nga jàngatee li nga xam ne moo di parrainage bi ngeen dëgmal. moom yaakaar rek lañu am yaakaar na tam kuy politique ku ne moom ngay dundee li ngay mën a def tamit mooy dem ci nit ñi di wax ñoom di jëflante ñoom yi nga xam nag moom mooy politique koy doxal tamit nga di ko fas yéene di ko jëflante ak ñi nga xam ne yaa ngi koy seq ak ñoom loolu rek lañ ciy mën a xam euh, yaakaar naa tamit ñun amuñu lu ñuy xaar ci ni yaakaar naa liñ nuy doo dana yomb ci ñun ci kaw ñi ni waxal bu fekkee liñ doon waxanteeg ñoom danañ ko def jafe-jafe jooju séentuwuñ ko séentuwuñ ko ci waaye nag teewul nag tamit ñu séentu ci jafe-jafe ba tey ndax tamit euh, vingt six mille yaakaar naa yombewul noonu yombewul noonu surtout ak jamono ji nii ni mu demee nii yaakaar naa dana laaj jàppale bu wér a wér bu ñu bu ñu def ndax tamit jot naa ne loxoy kese kese daal defu ko waaw kon nag ñu ngi ciy laaj xaar seen dimbal daal waaye nag li nga wax ni daal du yomb noonu jot nañu yomb yomb boobu du ci war a jafe-jafe bi foo yaakaar ni fële ci niveau signature yi lay nekk wala ci seen euh, diggante yéen ñi nga xam ne yéen leader yi seq euh, signature bi. waaw ñun suñu diggante leader yi ba tey am na ci dana ci am mais signature yi ba tey loolu moom moo gën di jafe-jafe yi ndax nit ñi amuñu jot amuñu jot mais teewul tamit nag ñun dinañ fexe ba def tout ba fuñ mën a nekk ñun ñu fekk leen fa bañ def li ñu war a def mais jafe-jafe suñ diggante ñun ci leader yi tamit ba tey am na. parce que démb ba tey réunion nañ réunion nañ ba pare mais taxagul nag kenn jotagul ay fiiseen parce que bu fekkee da nekk responsable bu ñu dajee def li ñuy def ba noppi kenn ku ne dañ laa war a wax jox ni la am tàmbali ci lii moo xam bu la neexee sax nga toog bu guddi nga commencé yaa xam heure bu mu la neexee waaye waruñoo toog rek di xaar naan euh, buñ dajee buñ réunion ay këyit la rek ay nit a koy signé ay nit a koy bind feeg amoo ñu la koy defal téye ko taxul tamit nga am li nga soxla. Mm-hmm. kon daal dégg bi ñu doon gi ñu yaakaaroon démb moom la Cheikh bu baax a baax. waaw déggoo gi xam nga des na man man xam naa ne des na li tax ma xam des na Touba mun bu na responsable yi dafa xaw a bari. responsable yi nag bari googu moo tax nag normalement déggoo du ci yomb mais nag lii damaa jàpp ne dana leeral lu bari. ndax bu ñu waree kenn ku ne ñu jox la uh, ab taux ne la demal nga bind ko soo ko mënta bind rek yaakaar naa doo mën a taxaw fu ñu fu ñu nga yëkkati sa loxo ni responsable la yaakaar naa dana am njariñ Macky ama am na njariñ ci moom xëy na waaye ñun ñi tamit nekk tubaab bëgg a politique ñun dana am mm-hmm. na des na bu baax ndax da ngay toog fi ñu ne am nañu dem am nañu dikk am nañu indi kayit yi mais noonu man li ma xam ci politique dañ koy weer comme ni ñu def nii démb baax na mais bu li jàllee li ñu war a defaat mooy suñu indee moyen nañ ko weer leneen lu ñu indi nañ ko weer. mais souvent nag moyens yooyu da ngay dégg ci presse bi ñu naan joxe nañ 100 millions joxe comme ni nga déggee la ñuy dégg dégg googu nag mooy indi lu bari mooy indi perte bu bari. parce que bu ñu dee dégg te duñ gis xam nga comme ñun niñ defoon nit ñi dañoo dégg ni jox nañ ni mais joxuñu nu mais ñun dañoo amoon taxawaay bi yàlla dem li ñun amoon moyen def ko ci ba mat sëkk. mooy campagne législative bi am ñu jàpp ñu bari jàppoon nañ ñi ñun dañoo war tax bañ jógee pour ñun ci ñun lañ ciblé yaa ko suñu hernie mais nag foofu ba tey buur xaw nañoo seetaan tuuti nag waaw pour man waaw. est-ce que du du comme li li Cheikh Abdou wax ne maanaam seen minute xare bi daal denc nañ ko ñëpp nekk nañ benn léegi est-ce que loolu moom yaa yaakaar nga dëgg-dëgg bu fekkee yéen bu moyen duggee du ngeen ko yëg bu leneen duggee du ngeen ko yëg bu signature dem leen liggéey. waaw man loolu xam nga wax naa ko démb li ma wax rek mooy comme lii ñu woote nii tey baax na baax na lool mais dama bëgg tamit buñ góorgóorloo ba def li ñu war a def ba noppi ba fexe ba signé xam nga signé rek moom dëgg la yomb na yombul. parce que na fekk tamit nga am nit ñi. ñi soow nañ dëgg jigéen ñi ñoo yor yëf yi mais góor ñi tam dama bëgg ñu boole leen ci bu wér borom kër yi ak ndaw ñi parce que borom kër yi tam aussi ci lañ moo tax ñun toujours ñu ngi doon boole suñu liggéey ci ñëpp la ñuy maasale bu ñu demee ci jigéen ñi wax ak ñoom ba noppi borom kër yi bu ñu sañoon ñun ñu boole leen ci jox leen respecté xam tamit ñoo yël seen i seen i njaboot mënoo dem fenn di paranete àndoo borom kër ga ba mu d'accord la ko kon loolu tamit bu ñu bëgg ñu boole ko ci ñu boole ci kilifa yi boole ci ñëpp daal euh, déggoo gi comme ni nga ko waxee rek man de defe naa ne am na mais defe naa ne des na parce que ñoom kenn ku ci ne xam nga ki la ëpp doole te du tax nga jox ko ko kenn ku ne nag da war ki la nga xam ne kii moo la man nga am loo ko féetale te te te dëggal ko. bëri yoo xam ne fi la lay fekk gis nañu ay parti yoo xam ne jógoon nañ bu yàgg commencé ñoom seen parrainage. waaw ñooñu man ni leen gisee rek noonu laa leen doon gisee xam naa ne ñi ngi doon bind mais nag ñun amuñu woon yàkkamti parce que xam nañ ni li ñu war a def ci ci buur rek la war a mën a jóge ñu joxe ko muy kayit yu leer ñu def ca lañ cey def kon am ñi bindoon tamit xëy na ñi ñu bindoon doon nañ leen sonal. xëy na bind nañ ne amoon nañ seen numéro téléphone duñ leen bàyyi de foog ñu sonn leen soññi leen waaye nag ñun dañ fay defaat nag acte yu bari ndax président moom toogul ñoom dañoo yàkkamti di bind mais moom it dafay liggéey bëgg wane liggéeyam am na yu mu fi jot a def yu mel ni Ila Touba wala yooyu gone yi ko mos daal ñëpp xam naa ne ñu ngi wootee was nañ fas nañ yéeneen noo parere ñu may woon nii man pare naa yaakaar naa bu ma jotoon samay këy tey man li may def du yàgg mm. ñu ma sedd daal dinaa dem sama kem kàttan jot naa ne du ma a yàgg ak moom daal. par exemple jàppoon dina am ay jafe-jafe ci ay ñii si ñaari yoon nag ñii kii ndax ñàkk information. waaw loolu mënta ñàkk mais nag ñi jël tamit ñoo war a am rek te teewlu man comme dama koy wax toujours man bu ma jël rek ku ma doy laay jël ku ma yaakaar ne daal ëllëg ak si biir du war euh, dama am ay militants dama bëgg a fexe ba samay militants fii fidèle ci man boo lëggee dama leen di soxla dañ may soxla du permanence rek laa leen di doyee jéem a yàqal it na mun ngaa dem tamit yow li nga dee ni da ngay yàqal kooku fekk yow sa bopp nga yàqal daal buy dem di laaj ay dante di ko di leen bindloo di leen sañee na seen ñu ko doy mu def demante koog ñooñu parrainage bi presque pré campagne la maanaam campagne bi ñëwagul waaye dafa nekk campagne bi dox ci diggante bi est-ce jàpp nga ni parti bi dina génne ay moyens pour dugal ko ci waaw parti bi nag bu ko génnewul nag da ko war a génne tamit ndax euh, natt sa bopp la boo nattee nag te te li nga natt euh, mu xaw a manqué nga bëgg a wàññi di di dogaat du gën li gën daal mooy ñu teel ñoo dimbali wutal ñu ñun ñu jàppale ñu mën a teel a liggéey bi mu bañ a yàgg ndax yàgg gi gënu ci yaakaar naa bu ñu dimbalee du yàgg ñun ay dix war nañ ko mën a def war caa mën a àgg sax waaye nag laaj na tax wax dëgg yàlla moyen xëy na am nañu am moyen man koo def mais ku ko def dana métti rek ndax faaw nga jël ñu la bindal faaw tamit nga jël ñu ñu ñu taxaw da war a togg añ lu mu doon la daal moom ndimbal la laaj yaakaar naa bu ñu dimbalee ca lay gënee maanaam bu ñu dimbaliwu tamit nag insha allah fas nañ ko yéene def gis nañu mat juróomi élection yoo xam ne jàll na ci ci ci biir Touba su ma juumul ñett yi wala ñeent yi da ngeen a nërmeelu lii di ñëw nu ngeen ci fas yéene taxawee. waaw xam nga yooyu yëpp dañoo normé am na ci yooyu dafay jaar mais du élection mooy référendum bi moom man wax dëgg jàppee moo ko élection. parce que euh, au conseil bi aussi ñun dañ cee góorgóorlu. ñun wax dëgg am na luñ ñu ci digoon wax nañu dañ lañ koy jox amul amul amul wate dañoo taboon ay nit mais bi ñu taboon it man dama àndoon ak ñoom dem kam def campagne bu rafet dem ci. commune bu ne commune bu ñu taxaw mu ne lu ñu fa joxe joxe fa joxe naa ko lu toll kon yaakaar naa boobu man li ma ci defoon war naa ko def euh, commune bu dem ndaje muñ ndaje bu ñu fa joxee seen ñaar kumba teg naa ci sama dara ba yàlla doxal ñu am ndam euh, xëy na lañ ma ci diggoon yàlla def na joxuñu ma ko mais man nag du ma ko ma yaakaam ci xëy na lu ñëwul ci man rek da sama wërsëg te lii sama wërsëg bu jotee dana ñëw comme yeneen yi fi jaar perte ko mooy gis nga ko mooy législative yi yaakaar naa kenn ku ne xam na ne ñun lañ ca war a def def nañ ko ca campagne nañ ba ñëpp xam ni ñoo mane muy journaliste muy ku dëkk ci dëkk bi bu ñu defee seen sondage dañuy wax ni affaire moo moo mane leneen li ci des des nag mooy yàlla moo ñëw ak dogalam guddi mu taw taw ba lu bari na lu mu ca yàq leneen li ci nag tamit nag mooy man bugguma tudd kenn wax ni xëy na ñoom ñoo ñoo ñoo def sanction mais am na ñu bëri ñu bëgg na bokk ci liste bi bokkuñu ci dañoo taxaw rek seetaan te ñun xam nañ leen xamante nañ ci suñ biir. xam nañ ñun xam nañ kon nag loolu tamit bokk na ci li nga xam ne nit daal bu bëggee mbir bokk naa ci liste bi bokkuma ci liste bi teewul da war a bëgg sa parti gagné. parti gagné mooy ñun ñi dëkk Touba war a jàkkaarloog suñuy noonu ñun ñoo war a fexe ba suñu noonu yooyu buñ ñu a gagné. du Macky Sall moo gagné mais ñun ñi jàkkaarloog ñoom itam buñ pertee ñun ñun la ñun ñoo fexe ba buñ amantee ñun jàkkaarloog xam ne ñii ñun dañoo a doon ku nekk ci liste ba ku ci nekkul ñu xam ne ñii kat ñun suñuy noonu lañ te façon fas yéene tamit boo ñu mën a taxaw bàkku ci suñ ko wane ne ñun ñoo leen man mm-hmm. loolu tam man dama bëggoon ñu di ko boole ci suñu li nga xam ne war nañ koo def booy jàkkaarloo nit ki mu nekk parti nga nekk parti fexeel yow ba sa parti gaañee rek boo ca nekk boo ca nekk waaye nag comme man defuñu ma ci liste bi rek dinaa xeex liste bi daa ma yooyu tamit du politique boo ciy dugg da ngay bëgg nga nekk ci politique bi boo bëggul tamit nga bàyyi waaye defe ni tamit lu ñu war a tabb yow lañu ko war a tabb rek non parce que kuy dem ci ci ci politique itam ki nga gën a am yaakaar rek nga yaakaar ne mën naa gañe moom nga war a dugal. am ngeen ñu bees ñu dugg si ci yéen ku ci mel ne ay ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye yabal nañ fa ay délégation ay Modou Diagne Fada ñooñu est-ce que jàpp nga ni a jàppale dëgg-dëgg am na fa njëriñ daal. xam nga loolu xam nga bugguma sax euh, wax kenn ku nga xam ne fam fam fam fam fam ñëw yaakaar la fa def bugguma wan ne amu fa njëriñ duñu fa ñàkk njëriñ xëy na naam ndax tamit politique la politique la ñooñu xëy na ñoo ñu jiitu ci politique waaye taxul nag tamit ñu mag ma ci hmm, yaakaar naa bari nañ bari nañ militants yi amoon am na ci ñun ñun xam nañ leen te ñu ngi jëflanteeg ñoom ci lu leer euh, bu ñu demoon tey yaakaar yi lañ doon am danañ ko am ba tey foogu ma ne diiti nañ ko mën am nañ ko doon amee ndax euh, am nay jamono dañ ni tekk ñun nag loolu mooy li ñu sonal jamono yu ne ci Touba ñi niy dégg di ñëw ci ñun te bëgguñu delloo loxoy neen loolu moo ñu xaw a sonal ci politique mais ñooñu mën nañ fay am njariñ ndax politique yi nag moom xam nga ku woote daal ku la wuy si nga bëgg. Mm. comme wuy si nañu tamit mën na am lu ñu indi daal. am na sondage yi ñu jot a gis day favorable ci Macky Sall ñii nee na ñëpp gis nañu ab jël ba mu des moom. yow ndax loolu loolu nga gis wala man du ma mën a gis jël man dama bëgg a bokk ci ñi nga xam ne rek damaa bokk ci ñi koy yëkkati euh, parce que tamit nag dox ci mbedd mi di laaj ak yooyu bokkut ak ñun ñi ñuy jëflanteel ñun dañoo bëgg a jëflanteeg ñoom ci dëgg buñ politiquee dañuy jëflanteeg ñoom buñ politique tamit dañuy jëflanteeg ñoom kon nag buñ amee luñ bëgg war nañ caa mën a àndanteeg ñoom ñu ñu ñu jàppale ñu ca parce que nag moom dëgg la président la dañoo yaakaar ni mën naa daanu mais nag ñun fas ñu yéene daal mu daanu ci suñu liggéey yi ni ñu ko bëggee nañ nu jàppale daal ñun dinañ leen defal li ñu leen war a defal incha allah. mbirum Khalifa Sall da yàqal na ko ay ay nit ñu baree baree bare. waaw loolu man mën naa cee d'accord ak yow loolu man damay wax ni Macky Sall toujours dama ko wax nag man man amu ci lu ma war a am lu may lu may ragal dafa waroon a am ñu ko jege ñu nga xam ne dañ koy wax lu xam ni mu gën a yokk. fitam xam góor tamit dafa war a dëgër. bàyyi bàyyi adversaire yi jàpp ma jàmmaarloo. waaw jàmmaarloo ak ñoom ñun tamit ñun ñun ñun xam nga ñun bañ nañ ko ñun mun bu ñu jël ci ki ñu tudd la jël ñun dañoo bëgg a dëgër nit def li ñu bëgg ci moom mooy mu xaw a dëgër am fit parce que li nga wax ci Khalifa Sall la dana am ñooñ xëy na. parce que gis naa ñu ba dañ ne man ab tax na léegi ci àndatuma ak moom. waaw ni nga koy déggee lañ koy déggee waaye teewut nag ñun tam rek ñun dañoo am suñ nit yi bopp ñu nga xam ñun suñ nit yi bopp lañ dañuy yaakaar ne nag ñooñu tamit dinañ mën a wax ak ñoom li ñu bëgg daal ñu ànd koog ñoom xëy na mbirum Khalifa Sall moom lu fi jaar day jàll waaye yaakaar naa xëy na du ñàkk bu yoon defee liggéeyam ba pare Macky Sall def liggéeyam jéem koo baal. lan ngay dëggee ci parrainage bi ak looy wax sa militant yi. man parrainage li may wax sama militant yi rek mu ñu yàkkamti ndax suñu ànd dañoo bëgg mu yàgg leneen lu fi waaye def it ñun dinañ ko xam dinañ ko yëg kon nag euh, li doon gën daal mooy ñu bañ a yàkkamti xam ni ñu xaar baa yàlla mi ngi ñëw lam doon def lay defanteeg ñoom dëkkul Ndakaaru dëkkul feneen Tuubaa la dëkk nañ fexe bu ñu yàkkamti bu leen kenn nax comme na ma leen ko doon waxee rek eh, nañ too xaar ma dinaa ñëw ci ñoom ku ma war a parrainer rek dinaa la parrainer ëllëg ak si biir parrainage day jeex ñu des fi kon nag bu ñu yàkkamti ba keneen nax leen ku nga xam ni. dëkk parrainage sax am na lu gën a mën ndax présidentiel yee topp ci kaw. waaw présidentiel yi mooy topp ba tey waaye nag ñun ñi dëkk tamit ñu dëkk ngir sëñ bi ñu ñu nañ fa fasante suñ ko lore googu rek ñu dëkk suubaa parce que yéen dëkk nag faw ñuy xay ay ay warante daal lu ci am ñun loolu lañ leen di soññi nañ ñu xaar du ñu dem ci ko nga xam ne xamuñu ko woon wala ku leen bëgg a nax wala ku koy xëy tey rek dinaa leen pare dinaa leen defal lii dinaa leen defal lii nañ bañ a yàkkamti ci ñun ñu xaar ñu ci li ñu leen doon defal lañ leen doon defal dañoo ñaan yàlla mu continuer waaye fa suñu yéene mu dellu gannaaw maa ngi nuyu ñëpp di leen ñaanal jàmm parrainage bu jàmm jërëjëf